waaw salaamaaleykum ah, toute la diaspora sénégalaise Modou Modou Fatou Fatou ñu leen di ziar yi ñëpp j'espère que ñëpp a ngi am jàmm waaw ñooñu ci dimanche bi ñoom génn génn naa ñëw liggéey si mais dama leen di woon rek comme lu leen di wax tout le temps ñun amuñu dimanche amuñu lundi lu ñëw dañuy koy jaayante boo leen xoolee ñun fii lañuy gaare suñu camion yi mais gis nga lii mu la woon ni même liggéey sax liggéey amatul xoola camion yi ni ñu gaare te ñu même dimanche dañ koy liggéey te lii parking bu mag la boo xam ne boo xoolee gis ngeen ko nii camion yëpp a ngi nii gaare ñëpp a ngi nii maanaam amul sax liggéey ñun sax dañu am contrat dañu am chance am contrat boo xam ni gisoo ko di gaare ni am contrat boo xam ni euh, dañuy kon di di dem di jël suñu chargement di yóbbu donc gis nga lii mooy Amérique ak Europe bu ñu yaakaar ni comme avant la déedéet avant da nga naa ñëw dugg ñun suñu pa parking lot bu mag lañ yor boo xam ni euh, ay dafa xaajloo bu bëri quoi gisoo ba fële ne yëpp gisoo ko nii côté bii léegi man fii laay parqué sama camion ci kaw nii da ngay gis xoola boo ñëwee lépp lépp lépp lépp boo xoolee camion yaa ngi ni dawatuñu waaw ñu ci bëri dañoo gaare ñu ci bëri parce que chargement ci booboo sax lañ dul gis xoole xoole ah te da nga naa ñëw fii fekk fekk mu libre am na loo xam ne il faut nga won ko doomu aadama mu gis ko xoole mi ngi nii xoolal xoolal lu mu feesee amatu benn place gis nga li ma la liggéey sax même ci camion ak li muy am xaalis yëpp instant bi essence bi dafa cher lépp a yokk boo a gars yi duñu sax dawatuñu sax ay dimanche gis nga ñu ngi nii xool leen mu feesee xam nga lii dafa jar a bàyyi xel muy ni ay tuuti ñëw kenn gis nga place bi des na place bi mais sinon xoolal camion yi ngi nii fees bi dell dell dell dell dell nii nii moo tax euh, loo leen mën loo leen ko mën a jaayante leen jaayante leen ko loolu leen mën a jaayante jaayante leen ko voilà maa ngi nii waaw sama camion bi moo ngi nii mooy 82 bi ngeen di gis nii donc euh, li may wax rek moo ta jaayante leen ko dool leen ay gaynde xam ni xam ni euh, xoolal xam nga lii dafa lii dafa yéeme lii dafa yéeme mi ngi nii waaw camion yaa ngi ni gaare fes fi dell waaw fes fi dell mi ngi noonu donc yii yëpp xoolal mbàkki laat bi lépp lépp ah. donc euh, nañu nañu li may wax rek mooy nañ ko jaayante affaire bi nañ ko jaayante liggéey mësta rey mësta doomu aadama waaw liggéey mësta rey doomu aadama voilà donc nañu liggéey affaire bi loolu kese la de ku liggéeyul billaahi yow yaa koy rek waaw parce que comme li may wax rek waaw comme li may wax instant bi nga xam te ne li naan jën yu mag yi jeex na njabooy bee si des looloo fi def fu ne nii moo tax nañ koo jaayante lépp loolu mën a liggéey liggéey la jaayante leen ko jéem a defar seen avenir que doole bi ngeen am day jeex am day jeex opportunité même bi nga am day jeex moo tax jël leen ko loo leen loo jëlal parce que nit ki noo lay amee xaalis di di ko jaayante loo gis jëlal loo gis jëlal bu yàggee ba ba nga am dara amatul loo tibb boobaa yow boo parce que nit da plan B te plan B bi mooy Sénégal waaw fii du ñëwuñu fi rek pour laal fi siège pliant fii dañ fee ñëw pour wut waaw ba pare doon royukaay pare di ko jàngal xale yi donc lii nag nit ki bul fooy sa avenir ñi daan yor seen xaalis yëpp ana ñu tey ñoo xam ne ay millionnaire milliardaire doon taal seen xaalis di foo ah yaakaar ni ñu ngi liggéey li dee lépp ay jeex moo tax man dama koy jaayante comme ko ak ni lii suba dootul amati waaw lu ñëw mu jël donc mi ngi nii yéen a ko gisandoo camion yëpp a ngi nii gaare donc nañ ci yeew nañ ci yeew bu baax a baax waaw nañ doon ay gaynde te man képp ku may déglu comme li ma la wax rek dama lay former da ngay daal gaynde ci saasi nangoo tekki nangoo ñafe waaw doo dootoo nekk ci yaafus kon nañ ko jaayante waaw yal nañu yàlla may dégg ak topp surtout waaw ñu doon ay gaynde liggéey mën a mën a mën a appliquer surtout mbaq tekki égal kër kese képp koo gis mu ñëw di la solal ay na nga def waa booy yaa ngi lekk sa xaalis waa ci loo nekk ñooñ foo leen dégg xam ne ñii ñii ñoo tekki waaw mooy ñoo xamante ne amuñu benn njëriñ sa simple ndànk ñoom ñooy lu ñoom ñooy lu ñuul li taq ci ci ci ndab li ci xaw ma ci soow bi tëmbal leen ci géej gi ba foofu ñu naan ci xorom bi waaw mais yéen daal nekk leen ci waar gi rek muy dëgg waaw.